Mohamed bun Abdallah Nous lay wayel Judu rafet mag ta takul te mbokki Sénégal Nous delu ci wat di Mohamed Boun Abdallah John. Eh, demb dañu dem eh, nuyu suñu benn Sophie Diallo ci Cité Fadia nuyu ko la jeunesse gis ne jeunesse bi jafé jafé bi mu am bi nga xamné suis principal jafé jafé moy xey lolou nak moy andi jafé jafé bu ne ci réew mi ndax euh, xal réew réew xale ko yoré bu dem ba nga dañuy yewu bo nek ci feu pour euh, jàppale seeni wajur buñu ñu tolloo foofu nañu xoolaat suñu bopp ah ñu jóge fa ne Gossas Gossas ku ne Cité Fadia ne jeunesse urbaine ku ne Gossas ne jeunesse rurale même chose moo fa nekk même chose moo fa nekk moo tax nag defe naa jot na ñu réew mi régler définitivement problème mu xëy mi ni mu koy régler nag mooy mënoo am am xëy su fekkee amoo métier loolu moo tax ma ne di damay baamtuwaat engagement bi ma jël incha allah bu ñu ma joxee lenge yi ci élection yi di ñëw man sama engagement mooy incha allah dinaa jël soixante-dix milliards def ko ci

Ah, defe naa xëy dina gëna yomb ci ñom lolu sama engagement la bo xamné dama ko doon bamtu wat parce que lu important la ci réew bi ku né jeunesse né force ku né force né cohésion sociale loolu c'est important am ko jërë ngeen jëf.